alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu taala wa sallama ala muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di ko teg ci loxol sëriñ ahmadu mi nekk ci bopp njaboot gi njabootug sunu maam sëriñ Mouhamadou Khary Mbacké di kenn ci jàmbaari lislaam waaye di kenn ci kennu yoon wi di nuyu kilifa yi fi teew yépp te bokk ci njaboot gi ak nuyu ci bokke waaye di nuyu njabootuk sunu maamet sëriñ Daru Xasan Njaay di rafetlu jëf ji nga xam ne mbokk yi def nañ ko ci teraanga ju am solo yi nga xam ne dafa mel ne dañuy jéem a yeesal ak di dundal def defu sëriñ bi lu am solo la ñu ngi leen ci ndokkeel di nuyu mbokk yi fi teew yépp di am mbégte ci teew ci bërëb bi daarul xidma muy tekki lu bari di firndeel lenn ci jeexiti liggéey sëriñ bi mbokk yi sàkk woon ñu waxtaan ci li sëriñ ji li wax léegi tombu njàngalem sëriñ bi wan gi ñu gis ne am na ñu koy wan ginnaaw te juddoo ci yoon wi bokk ci ñu jéem a xam lu ñu jàpp ne moo ko sabab waaye suñ ci bëggee génn lu ko saaf lu koy saafara tomb bu am solo la mat a bàyyi xel ndax jàpp naa ne ñun ñépp ñoo koy yëg di ko dund kon waxtaane ko ci sunu biir dana am njariñ ndax suñu xamee sabab yi rekk saafara ko du jafeeti waaye lu am la lu ñu teg bët la ci ay anam yu wuute ci ay anam yu wute ngir waxtaan ci bëgg na tàmbuli leeral tuuti ci njàngale sëriñ bi li tax ñu war koo téye solo su mu am ba tax ñu war koo téye war cay jàpp war fexe ba njaboot yi tënku ci loolu nag ku ko bëgg leer da leeral njàngale mi ci fu taxaw laltaay yu ko téye bi ko sëriñ bi indee dund ko dundal ci mbooloo lu mu jur su boobaa danañ xam ne njàngale la moo xam ne moo gën ci nun tey ak ëllëg kon ci téye ko ak sàmm ko ci la sunu njariñ nekk bu ñu xamee li mu doon xam fi mu jëlee ñim fi fekkoon ak fi mu leen yóbbu ndax mbir umpule ko dana waral nit doon ko ginnaaw ñàkk xam njariñam dana taxit nit ki du ko soxlaal waaye bëgg nañoo leeral tuuti ci ay mazahir maanaam dëddu gi wan ginnaaw ñenn ñi tàmbulee wan ginnaaw njàngale mi du rekk yenn wet la jëm ci ay anam yu wuute la jëm jéem a tudd yenn sabab yiñ jàpp ñun ne loolu sabab la duma daq keneen jàpp leneen waaye yi ma jàpp man ne ay sabab la ci moo ko waral tënk nag li ma jàpp ne mooy saafara ci loolu mbokk yi li sëriñ Tuba indi woon li sëriñ bi Njaay doon wax léegi ci sëriñ Daaru Xasan firnde la ci li taxoon sëriñ bi jóg mooy wooteeb yàlla la nit ñi maroon yàlla di wër fu ñuy àgge ci yàlla sëriñ bi daa ñëw nekk seenu làmp nekk dex gi leen di màndal fu ne waaye bàyyi ko fa ñëw wuy si ko li koy firnde loolu mu wax ne sëriñ daar bi ñëw ci sëriñ bi boroom xam-xam la woon bu jàng ba doon àggale si alluwaam kon xam-xam rek taxu ko woon jóg waaye am na leneen lu féete kaw xam-xam xam-xam di ca gunge nit waaye mu jëm foofa te gis na ne ci sëriñ bi la loola nekk kon li jiitu ci ñu war koo xam war koo bàyyi xel mooy sëriñ bi ab daawa rabbaaniya la yoroon woote la woon boo xam ne yàlla rek ko taxoon a jóg ku yàlla ñor moo ko doon wuy si ku yàlla ñorut sa yoon nekku ci dëgg la fekk na fi ci réew mi ay boroomi xam-xam fekk fi ay daara fekk ñuy jàng alxuraan di jaamu yàlla waaye nag ni mu war a safe yàlla ni ci yàlla rekk war a jiitu mujj ci bari na ci ay barab yoo xam ne desoon na taxoon jàng di am wattu alxuraan di am ci teewut ay kaan di laawaan takk ay seetu léttu ay jongoma wër la yoo xam du ñu say soxna ngay tare ñu lay awu soo ne wala aadiyaati ñu ne dabuxan fekkoon na fi ñu jàng jàng téere yi ba doon ay ilimaan dooni xaadu waaye su buur ne attel ma mu laaj buur fu mu bëgg àtte bi jëm fa kon desoon na ci ay barab mbir mi yàlla rekk ne ci yàlla rekk so uh, tax koo jóg mu mel ni bi mu ñëwee moom am ndigalul wool nit ñi te bu leen woo ci njàngale kese ndax mooy njàngum kese defaru nit njàng wasiila ci wasaa'il yi defar la bokk waaye du moom rek nit jàng na ba wannu lef gën a dëng ci nit ñi lu bari ci téere yi nga xam ne dañ ci yàq nit di ci boole ay xaraf di ci yàqum xel di ci dëpp xelum nit ba jarañoo alalam ay waroom xam-xam rek ñoo ko def kon du xam-xam rek moo tax nit ñi àgg fi ñu war a àgg moo tax moom ndigalul jàngalal nit ñi yar leen waaye bu leen yem kese kese cim jàng te li mu fi fekkoon mooy sëriñ daara yi ñu ëpp ci ñoom ñoo seeni dongo li leen séq mooy téere bi tëralal ko ay bind su noppee nga bàyyi ko jëfee moo xam nu mu koy jëfee moo xam sëriñ bi nag indi yoonu tarbiya nga xam ne dangay joxe sa bopp ñu lay jàngal waaye di suuxat ci yow xam-xam bi ba say cër di ca làggi nga mën cee wéy du yem rek ci jox naa la xam-xam bi demal fu la neex jëm kon yoonu yàlla la woo xam ne war nañ ko bàyyi xel baax a baax loolu moo taxoon sëriñ bi mbooleem lu muy santaane. daf doon wax nit ñi ne ngeen ko daf ngir yàlla lépp lu mu digal rek bëgg nit ñi bàyyi xel yàlla rek ba mu la jiitaloon taallamul ilma li wajhillaahi duunal munafasati wa tabaahi fekk nañu jàng xam-xam mu ne jàng leen yàlla te yàlla tax waaye xëccoo bu mu leen ci dugal puukarante bu mu leen ci dugal waaye fekkoon nañuy jàng boo leen laajoon loo tax di jàng du weesu man kat samay maam ñoo doon jiite jàkka ji te su ma jàngut du jiite te bëgg damaa jiite wala sama maam moo doon xaadu dëkk bi te xaadu yi ñoom lañuy jox fàllare yi tabaski yi te bëgg naa cee jot te su ma jàngut du ci jot ak yu demee noonu kon am ñu jàng ngir ay cër yuñ soxla ci àdduna wala fu ñu bëgg nit ñi teg leen fa wala sax bëgg mbooloo mi dëgmal la ndax gis nga ne sëriñ daara yi ñoo yor mbooloo dongo yi waxtu yu fi jàng yaay doon seex bi bu liggéey jotee ñu lay liggéeyal sëriñ bi ne laa su taqsudu istimalatal baraya lakum wala hawzakumul hadaya kon fexe ba jële leen ci jàng ngir lu dul yàlla kon di saxal ak yàlla gi nga xam ne moo taxoon muy wootee wax ne lépp looy defit bu la ci lenn dugal lul yàlla jaamu yàlla bu yàlla taxut amul njariñ wasaytukum yaa man taallaqu biya fi sirri wal jahri li wajhi rabbiya an tatruku muharraman wa ma kuri li wajhi rabbikum wa kulla mushtabih bàyyi leen lu xaraam bàyyi leen lu ñu sib bàyyi leen lu lënt waaye na yàlla tax bu ko ci benn kenn bàyyi ngir ne fii kët buñ la xamalee dara boo bëggee doon ilimaani jàkk ji duñ la fal ngay moytu waaye yàlla taxatul loolu mën naa tax sax boo xasee doon ilimaan jàpp ne loolu neex def ndax sàmm gi nga doon sàmm yàlla taxut daam loo cër boo doon wut rek boo ci xasee jot sàmmatoo dara sëriñ bi ne déedéet jaamu leen yàlla ngir yàlla bëgg lu ngeen am bu mu leen tax di jaamu yàlla moytu lu ngeen di ragal bu mu leen tax ngeen di jaamu yàlla daana wax ci yenn njàngaleem ne yàlla dañ koo war a jaamu ngir ne moo yàlla waaye waree su ko jàmm ngir bëgg na waree su ko jàmm ngir ragal sawara loolu nee na jaamu yaxantukat la ab commerce kuy def commerce moo jàmmoo yàlla noonu moo di ne la muy wut su ko amutoon jàpp ne kon yàlla su ko mënoon am feneen dootu jaamu yàlla waaye sëriñ bëgg koo xam ne day jaamu yàlla ngir ne yàlla daa yeyoo jaamu donte diggewu ci dara tëkkawu ci dara it da ko war a jàmm rek ngir ne moo la moom te yeyoo na li nga koy defal foofu la doon yóbbu nit ñi bëgg ñu àgg fa di wax ni yooyu nag ku dem ba xam li nga war a xam bu la neexee demal nga bero ji ne ci sa dund ku ñëw nga ànd ak yow ci loolu waaye ku xamagul yooyu amoo sëñ sañ ci beru demal wutib sëriñ topp ci ginnaawam mu lay wommat man alima al jamia fal yufaariqa wa man biha jahila fal yurafiqa kon moom yëfi yàlla la mu woote lépp lu waay defit nee na na ko teg ki yàlla booy booy jëf ci nit ñi ne yàlla tax bul bëgg ku la tàgg bul ragal ko la ŋàññ fax dimuhumoo turran li wajhillaahi faqat bila mannin wala ishtibaahi na ngay xidmaal ñépp te yàlla tax bu la nit doon xaral guddeeg bëccëg du tee bu xidma jotee nga defal bul seenu sant wala defal naa ko sant ma kon dootuma ko defal wala dégg naa day wax ci man nangam dootuma ko defal booba yàlla taxatul bu yàlla taxee li ngay joxe da ngay xam ne ki nga koy jox daa jaar ci loxoom waaye ci yàlla la jëm te yàlla mi ngi koy gis mu ne kon na nga xitmaal ñëpp waaye na yàlla rekk tax bu ci seenu leneen kon moom woote bi yàlla la lu ci waaye tàbbal lu yàlla taxut amul njariñ bokk ci li sëriñ bi woote woon loolu nag jàpp naa ne ku ko xam da ko fonk da rëy ci yow lu mel noonu it moom la ñu baax ñëpp doon wut an abudullaha muxlisina lahu diin loolu la alxuraan doon jàngale yonent yi moom lañ fi indi woon nit ñi nekkal yàlla ci kaw suuf li yàlla bëgg ñu tënku ca du ñu am beneen buur bu leen di moom bu dul seen boroom yàlla wooteeb sëriñ bi loolu moo ko laal yàllay kese la yoo xam ne ñi ko wuy si woon yàlla rekk lañ fi indi woon amu ci kenn koo xam ne bi ngay ñëw ci sëriñ bi da ngay séenu bu ëllëgee nga doonub seex wala nga am barke yàlla nga maroon gis ne dex la gu la mën a màndal nga bàyyi sa lépp ndax am na ci ñu mbokk yi waxee léegi ku mel ne sëriñ Darou Xasan amoon na fu mën a toog am lu mu yilif ak ñeneen ñu mel ne moom waaye dañoo bàyyi lépp ñenn ñi sax seeni mbokk jàppe leen ñu seen yaram naqari ndax nu ñuy bàyyee taraanga jutal nii di wuy ji sam nawle boo xam doomi soxna doomi soxnal la yow fekk booba ñoom dañoo gis lu ñoo ñu gisul kon ba ñuy ñëw ci sëriñ bi yàlla leen fi andi woon lépp lu leen fi dab ginnaaw bi barkeb barkeb liggéey ba de di lenn ci ay jeexitam waaye taxu leen a jóg loolu lu ma a xam la ci yëf yi ndax bu jamono doxee léeg-léeg yeneen di feeñ yëngut ay yënguti am nit ñi di di fiire yu ne leneen baax nañu xam loolu nag ne sëriñ bi moom ak ñi ko toppoon wuy si ko ci seen coobare yàlla rek leen ñoroon moom lañ doon wut wutuñu woon leneen waaye woote la boo xam ne it nag bokk na ci lii ma ne am solo mooy ak wasatuye moo ci nekk dafa digg doomu ëppul yeesul sëriñ bi dafa indi njàngale moo xam ne moom mooy lislaam doonoon wa ko ja'alnakum ummatan wasata xeetu lislaam mooy ñi nga xam ne dañoo diggu ëpp ñu yeesuñu ëpp ñu yeesuñu lu mel noonu mooy defar nit ndax doomu aadama dafa am yu ko composé yoo xam ne boo fa boo yittewoo yenn ya bàyyee ca des rek nite ga des boo ne àllaaxira mooy kër fa la ñu jëm kon dara rëy àdduna duma ma ko yittewoo gannaawal yépp te àdduna di tool yi ñu war a fàggoo ëllëg saw doxin mën naa bañ a rafet mbaa dana manqué waaye boo ne àdduna laa lekk sama lépp àdduna lay mit bàyyi loo xel àllaaxira su boobaa it saw doxin du am njariñ ndax mujj ga du rafet sëriñ bi indi nag woote boo xam ne ci digg bi la ne wabtaxi fii ma ateeka allahu daari laaxira wala tansa nasibaka min addunia ji alquran waxoon sédd àllaaxira waaye sédd àdduna jël ci li nga war a jël dugal ko fi nga ko war a dugal moo taxoon ci ay jàngaleem mu leeraloon taalibe yi ne leen bu leen ëpp bu leen yées wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin waqsita bu kenn ëpp bu kenn yées bul ne àdduna dara jëru fee wut doo fi sottal dara àdduna mooy jaarukaay bi fi la ñuy wute aljanna moo tax jaamu yàlla fu la yàlla soxlaa na la gis waaye liggéeyal ba mel ne ci àdduna nga dëkk te lay jóge ci liggéey bi lépp nga delloo ko ci yàlla loolu moo indi mag ñi ci àll bi moo leen tax toj àll yi sañ ci daara yi fu nañu dem fa ci àdduna ngir dégg wooteem sëriñ boobu moo taxoon benn naar di ko tagg wax ne sëriñ bi moom wooteem bi ci digg bi la ne hidayatuhu qasdun ida dayaqa alladi tasawafa jahlan aw tawassaa dul fiqhi bu amee ab faqih boo xam ne day yombal yépp ba daanaka lépp mu daganal ko sëriñ bi nekkul foofa bu amee suufiyanke bu taral ba xatal lépp lépp mu aramal ko sëriñ bi nekkul foofa mu ngi ci digg bi hidayatuhu qasdun ida dayaqa alladi tasawafa jahlan aw tawassaa dul fiqhi mutasawif bi xamut mën naa xatal mbir yi ba du jaam du defal dafal dara adduna di dëkk ci ay pax du fàggu dara ba fàggu waaye faqih bi nga xam ne it lépp lay yombal woyofal yépp yit ak jàpp ni adduna rekk a fi nekk kooku it sëriñ euh, woykat bi nee na sëriñ Tuubaa du kenn ci ñaar ñooñu kon woote digg doomu la boo xam ne da ngay bàyyi xel yàlla waaye bàyyi xel àdduna mi tool bi ñuy jaamu yàlla looloo indi jàmm yàlla ak liggéey ne lu bari ci tasawuf sufiyaan yu bari li ñeen xamaloon seen yitu yépp ci jàkka jàlla ak kurus ga ci ay sarax ñu ëpp ci ñoom ci ay sarax lañ doon dund su boobaa doo am doole doo am baat ci barab bi nga nekk lu neex buur bi rek bu la neexuti da ngay xat maa nga jëm ko muñ sëriñ bi nag indi woote boo xam ne yàlla tigi ngay gëm fu la yàlla soxlaa gis la waaye ci sa àdduna yit nag doo soxlaal kenn dara ndax loo bëgg faj man koo fajal sa bopp loolu muy digg doomu boo jëlee àdduna kese dara yàlla nekku ci amul njariñ waaye soo jëlee yàlla ji génn ci toolam bi boobaay du sotti mooy mën ngay dund fonk jàkk ji fonk kurus gi waaye saa boo lekkee beneen waaye moo la moo la jox nga lekk te xamoon nañ fi buur lañ daan wax buur yi ak yenn kilifa yu ñu doon jaxasool lu ñu ñaawal rek ab sëriñ lañ koy jox buñ ñu soree mbub bam ba mën duñ ko sol nawloo wuñ ñi ci des sëriñ lañ nawloo waaye nawloo gi mooy sama des la mën a jël bu ñu amee doom joo xam ne ceddo yi bëgguñ ko ndax am na lu sikk ci moom ci ñaawaay wala lenn ñu jox sëriñ bi sëriñ bi nag indi woote boo xam ne moom bu noppee ci yow da ngay taxaw ci wet yépp sa taxawaay bu mën sëkk doo tàllal sa loxo buur di ko dimbandikoo waaye safaan bi sax mooy am Sëriñ Touba fii ci njareem tubaab bi ñëw nañ fi di sàkku ndimbal bi franc français daanoo Sénégal gépp ñaari million fi jógee cinq cent mille Sëriñ Touba ko joxe kooka kooka du tàllal loxo du tàllal loxo nituk àdduna ndax sóor na àdduna li ci am la li ci am solo bàyyilul na ko xel ba mën koo jaamu yàlla loolu mooy lenn la ci li ñu war a bàyyi xel ci woote bi waaye woote tasawuf la nag ci tasawuf lay dund goo xam ne benn la nit ñi moo ko gën a ñor fu lu baax nekk yaa ko moom yow yow suufiyanke bi suufiyanke mooy koo xam ne amul kër ci mbaax fu lu baax nekk day dem jëli ko sëriñ bu wootee bu mel noonu la fi indi du koy beru jël lii bàyyi lii fu lu baax nekk rek alal moo taxoon mu leeral nit ñi ne ko ànd ak man bul gis mukk ab jullit jàppe comme noonu wala tuaadu man raaytum faahu yuxruju laa ilaha illa allaahu laa sa mbokk amoo amoo sañ-sañ ci def comme noonu di wax ne taxaababoo fi llaahi dil jalaali bila tanazuin idlaali àgg ci ne bëgg wali yàlla yi farata ci jullit bu nekk ku leen noonu da daje sa borom xubbu jamii al awliyaa yi wajaba wa kullu man aada al xiyaara xujiba ku noonu gaañu baax ni boo lëgee doo gi doo àgg doo àgg fa gaañi àgg kon woote benn la nit ñu xam ne jullit yi benn lañ fu ñu mën nekk ñoo bokk lu ñu bëgg bokk lu ñu wut moo taxoon it mu ne moom bu ñuy beroo ne lii lañ ñii fee lañ bokk ñee fee lañ bokk mu taxoon ne mashayix yi sayiduna al jilaani wa shaadaliyu maahu tijjaani man gaa yi baax yi fi nekkoon indi fi diine tasaare tasawuf ñooy sama sëriñ fu lu baax nekk donn naa ko ci ñoom mën naa ko boole moo taxoon ne tironam mu am ay taalibe yoo xam ne kër yëpp a ngi ci yilifoon na ay ta- xaadiriyoon yilif ay tijaan yilif ay shaadaliyoon bu dee ci jàngum sariya ñii bokk masab sàngam ñii bokk masab sàngam ku ne di xëccoo ne maa gën li ma man le mu ne man aimmat yi aimmat yi fil fiqhi malikul ali wa shafii wal xanafi wal xambali kànga bi ñuy tudd man ñooy sama imam ñépp sama ñoom samay dalwaay kon moom woote woon na nit ñi nekk benn kon woote buy benn la waaye du xajale nit ku bëggul baax rekk am nga ci wàccuwaay digaloon na taalibe yi ne leen mbooleem xeeti ñaan ak faggu téef yi gaa yi baax yi fabal day xutbu ci ci yoon bi digal naa leen digal naa leen lépp lu ngeen ci mën a jëfandikoo ngeen jëfandikoo fu ngeen ko mën a fekk na ci la wax woon wa amma ahzabul aqtaar wa daawaatu saalihin fa adintu lakum jamian fi lamali bi kulli ma tayassara lakum minha xaytu ma wajadtumoo wala xaytu wajadtumoo loolu bëriwul ñu koy wax fu lu waay lu baax daf boo ko gisee sa alal jëlal loolu la sëriñ bi santaane woon njaboot gi ko toppoon ci loolu la nekkoon di ñaan buy ñaan ñépp lay ñaanal wa axrina bi xubbi kulli muslimi wa aghnina bi hubbi kulli muslimin yàlla yàlla yàlla nag nu xiir ci bëgg ñëpp jullit ñëpp wa akhrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan war rahma yàlla nag ñu xiir ci liggéeyal jullit ñëpp moo tax liggéey bu mës a liggéey ngir jullit ñëpp ko bokk ku ci génne sa bopp yaa ko ci génne waaye alal bi mu fi teg la ngir jullit jariñoo ko yoonu aljana la wax ne ku ci soowu da ci àgg insha allah taala kon moom woote la boo xam ne war nañ koo xamee ci noonu waaye woote tasawuf la tasawuf mooy defar jikko daf doon defar jikko nit ñi ba lépp luy tax seeni jëf di yàqu mbaa muy manqué mu génne ko ci ñoom di bañ lool kuy naw boppam kuy yëg boppam kuy xeeb ñeneen ñi ku dikk ci ronam ba xas dugg ci ngéréw mu ne la saa boo jógee koo dajal la jàppal moo la gën loo gis ci moom ci lu baax néewut ci yow jëm koo roy ci moom waaye bu ko xeeb bu ko yàq bu ko suufeel bu ko doy dal ndax lan in taxju annaka du fadlin ala ahadin qabla najaati gadan min ayi insaani bi annaka du jahlin wa du safahin bis boo joxtee ne bis boo daje nga kenn jàpp ne yaa gën te yowmal xiyaam taxawagut ñu àtte jaam ñi ba ne asxaabul yamin ak asxaabu siwaal ñi ngi nii nga bokk ci asxaabul yamin fii ak àggugoo foofa dajeeg nit jàpp ne yaa ko gën nee na boo ko defee wooru nga ab dof nga umpule nga sa bopp comme di yar nit ñoo xam ne bu noppee ci ñoom ku ñu dajal rek dañuy jéem a jël ci lu baax waaye yéene ñëpp jàmm yaa maalikal mulki yaa man jàll an xawadi irham jami al kooku du yéene kenn safaan du yéene kenn dem sawara du tëkku nit faawu nit ku sawara la lim jàpp te bëgg ko te gëm ko mooy na ñëpp dem aljanna ku tënkoo gudd daa réer yàlla ko yàlla gindi foofu la nekk di ci ànd ak nit loolu la ñu woote lan ko nag ñetti yëf xam-xam bu am njëriñ ak jëfe ko ak jaamu jaamu yàlla ak tege ñetti kenn yooyu la sëñ bi taxawal wootee bi xam-xam mënu cee ñàkk yoonu xam-xam la faaw ñuy jàng ndax xam li mu wax moo tax mu ne woon kunu ma'an fil ilmi raghibina li wajhi man bihi yuqimu diina yéen ñëpp yéen ñëpp la wax na ngeen bëgg xam-xam ndax nit lu mu bëggul mënu ko jox yitte te baat yi sëriñ bi wax daa faral di wax bu ma a bàyyi xel la kunu ma'an ma'an jooju dafa am problème yu bari yu mu fi fekkoon na ay nit ci réew ñu baaxoo jàng jàpp na ñoom jàng am ñoo xam ne jàpp nañ jàngul seen wàll ku ci jàngutit kenn du la yedd kenn du jàpp ne danga wàcc sa waaso ñii doomi soxna ñoo war a jàng ñi ci des jàng yow seen yoon newu ci góor ñoo war a jàng jigéen ñi seen yoon newu ci sëriñ bi ne déedéet kunu maan fil ilmi raghibina bëgg leen xam-xam yi ñëpp ndax lan te it na yàlla tax waaye xam-xam boobu nga xam ne bu diine taxawee xam-xam a ko taxawal mbaarum diine kenn xam-xam a koy fu ngeen dégg diine ci xam-xam newu fa dañuy wax rek diine mënta am fu xam-xam moom moo taxoon mu soññ nit ñi bëgg loo leen xam-xam xir leen ci alayka yaa muridu bi taallumi fa innahu mutahirun min zulami taalibe bi dama jàngi ndax dalay laabal ci ay lëndëm ku amut xam-xam ci réer nga nekk ak lëndëm nga nekk te lëndëm nag wóorul kon yoonu xam-xam la loolu it mën taa soo ko xamee gis ne li lislaam santaane lépp ci xam-xam la wéeru sëriñ bi ci loola tabaxoon yoonam wi di moytu kuy tere xam-xam mbaa kuy tere nit ñi waaye yoonu al amalu saalix la amalu saalix nag sëriñ bi da koy wax di ci jublu li ngay defal sa borom muy ibaadaat yi da koy wax di ci jublu al kasbul xalaat li ngay fàggu ngir jariñ sa bopp ak seen njaboot ak bu lislaam soxlaa nga mën koo fajale soxlaa muy xidma muy kasbu xalaal waaye da koy wax jublu ci alxidma muy jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi di dimbale yàlla jaam ji di leen taxaw di leen fajal seen soxla ngir yàlla ñett yépp al amalu saalih kon da nekkal sa borom fu mu la soxlaa gis la ci julli gaa woor yaag joxe asaka yaag dem màkk yaag dafay baax ya ak sàmmoonteeg sart yi ci booy jëflante waaye nekkal yàlla ci nag bu wuti jotee nga dem wuti bañ a wékk say loxo ci ay nit ñu lay dundal nga féetewoo yow yor ab der ak kurus waaye yori daara kenn ku ne tojum àll mu waral àll yi ñu doon toj jamono yooye ndox newu fi amutu yoon kenn xamul lu fi ne te teewul ñu ñëw fi ak seeni bagage yu néew indi fi ndox daf ay nit di leen yar di leen tarbiya waaye di leen jàngal liggéey boobu ëllëgee ñu mën a sukkandiku ci seen bopp luñ fi sos te nag danaa koy faral di wax buñ génne woon ci xaritab Sénégal carte géographique Sénégal buñ ci génne woon dëkk yi ci murid yi sos jàpp naa ne dana yaraax te ña ko sos yépp nag ci ndigalu sëriñ bi ñii lañ ko sose woon yàlla rek taxoon ngir ñi jaamu yàlla ak li fa liggéey kon bàyyi xel loolu baax a baax ne liggéey boobu dañ ko soxla ci yoon liggéey ngir am lu lew ndax noonu na sàkk lu lew farata ndax xam-xam ak jaamu yàlla ak yu baax yooyu lu ñu baax baax bu ko lekk lu xaraam lalee amul njëriñ laa yanfahu l ilmu wala al ibada bil akli lil xaraami ànd saada waxoon ne iltamisul xalaala kulla saa bi aklihi yabdul huda wa taa sàkku lu lew ci waxtu yépp ndax ci lekk lu lew dong dong dong ci la am njub ak topp yàlla di mën a génn kon bëggoon nañuy liggéey te booba liggéey yi gën a am njariñ ëpp mujj gën a sell mooy mbay tax mu xeer ci nit ñi ñuy toj àll yi lu nañu def ko loolu ñu xam ne ci yoon lu bokk waaye boo bayee ba noppi nag doo ko denc ay sàq rek nag nit ñi sonn xiif waaye ku ñëw rek nga def ci moom ngir yàlla loolu la fi mag ñi nekk woon sàq yi lu bari bari balaa ko nawet du ko fekkaat ña ngay séddale ña ngay dimbale ña ngay saraxe ginnaaw bu ñu génnee asaka muy àq yàlla yi kon xidma bu bu sëriñ bi soxlaa lislaam soxla ñu daal di yóbbu dem daal dem dafi loolu li taxawal yoonu ci la bokk ak nag lépp di teggin lépp ay teggin mooy bi ci mujj am yi teggin sa digg ak sa borom am ko sa digg ak sa morom yi jaam am ko ci sa bopp war ma jëla yàlla jox nga xam ne yàlla daf laa wormaal nit yàlla da ko wormaal teral ko teraanga joo xam ne nee na lu bari ci mbindeef moom la gënal wa faddalnaahu ala kathirin mimman xalaqna tafdila loolu la wax kon nit wërta suufeel boppam di xeebu ngir alal wala muy xeebu ngir yëfi àdduna ndax yàlla teral na ko bu noppi am dignité kon loolu bokk na ci lim doon liñ bëgg ci ay teggin nga ndax boo wormaalee yàlla jox koy teggin nga jëm la teral sa jëm ji da ko rusa wàccee ci kanam ab jàmm boo xam ne alal leen boole wala yëfi àdduna sooy toroxlu yàlla rek koy tax ngay toroxlu sooy woyofal sa bopp yàlla rek tax su boobaa waaye doo ko def mukk leneen moo tax yu day sax daa waxoon ne rëylu ci kanam ab tooñkat ak woyof la ci kanam ku ab tooñkat ak woyof la loolu ci la taxawal yoon wi waxoon ne doomu aadama ji it yàgg sa moroom doomu aadama yi ñetti nit la la la ab jaam la nit buy dox ñetti nit lay dajal adduna ñi la war ñetti nit lañ koo mag ku la mag ko tollool sëriñ boo xam ne ki la mag daf ko sa kilifa wormaal ko jox ko cëram lu mu doon ci yow nongul ko ko te di ko jox koo mag daf ko sa doom yërëm ko wekk ko yër ko sutural ko koo tollool daf ko ni sa bopp noonu yoonu teggin foofu la kenn mënta wax ci teggin lu gën a lu ëpp njariñ lu gën a matal loolu taxawaay yooyu mu taxaw nag moo am jeexeet yu bari yu mu indil yoon wi yoo xam ne ku xool taarixu yoon wi da gis yi may bëgg a wax kon ñu xam ne aw yoon la woo xam ne ak i njàng la yoo xam ne am nay résultat yoo xam ne kenn du wax ne amul njariñ kon war nañ ko bàyyi lan li mu defar ci ay nit ay nit ñaatal la yoon wi defar ci ay nit ñoo xam ne seen yàlla kenn du ko sikk sàkk seen xam-xamu sharia ak xaq du ko sikk sàkk seenug amal njariñ àdduna kenn du ko sikk sàkk ñaata nit boo doon lim doo matal kon ay rijaal yoo xam ne sadaqu ma ahadullah alayhi te suñuy wax xam-xam di wax xam yàlla di wax njub di wax ak mbaax di wax koo xam ne saa bu ne mi ngi yëngu ci lu amal njëriñ nit ñi booy joxañ doo leen feesu loolu sëriñ bi liggéey na ci mbooloo mu jeex kon defar na ay nit ñoo xam ne li jiitu moom ku àgg fañ ma soon àgg koo dajeel mi boroom xam-xam ne yow am noonu nga koy def man ngaa bari xam-xam lool bari mbooloo lool waaye kenn du tudd fi yow beneen sëriñ moom mu sàkk nit ñoo xam ne dañuy jàng ba wanu lef jub lool baax lool waaye ku ci dajeeg sa morom jàpp ne sa morom la gën bu julli jotoon rek ngir jiite jafe-jafe day am ku ne jàpp ne sa morom la wal jiite loolu mbokk yi bariwul fu mu am de bari na jataay yoo xam ne bu ñenee julli dañ koy njëkkante ku la jiite nga mere ko diw maa ko mag wala maa ko raw wala maa ko njëkk ci nangam lu tax mu may jiite moom nag daroon defar ay nit ñoo xam ne bu ñu noppee ku dajeeg sa morom da nga jàpp ne sa morom la gën lu baax lu ñu def da ngay def ne moo la ci war a jiite nga topp ci ginnaaw loolu mooy defaru dara ju lu yàlla mën a jox doo ko gis waaye nga bëgg mu gën a yokk ba bu ëllëgee say cër ci yàlla gën a yokk sëriñ bi liggéey na ci liggéey bu am solo loo xam ne jeexee rës ay meññetam jàpp naa ne kenn upliwu loo xam ne lu waaye ñàkk cee bokk wala ñàkk koo jublu du tee nga nangu loolu ne am na ci jàmbare lislaam yoo xam ne amul genn wet bu ñu leen di jàpp te seen lépp bu si génn dara dara génn ci seen waaye tabax nañ fi ay dëkk yoo xam ne fépp ci senegal ña nga indi fa ndox dafa fa dafa daf fa fa ay tool nit ñi jàng di jare ñu leen di yar di leen tàggat liggéey ñaata dëkk ci Sénégal docteur Khadim si la mos ay jamono booba ëppoon na ñeenti téeméeri dëkk yoo xam ne yëpp ci ci Sénégal murid yi ñoo leen sos léegi am na ci yoo xam ne ay njënd la lu am ci dëkk yi mag am na fa ay ñaar lu mel noonu li ci nekk ci njëriñ am na fi dëkk yoo xam ne forage yi fi bënd rek la cay naan ci ay jur ak i nit bu dutoon sëriñ boo ko def ñooñee ndox dana leen jafe woowu yiw ku ko mën a ku àttan kenn xamul mu ba forage amagul. bënn ay teen lañ doon fu ñu sànc fu ne bënn foofu teen fu ne nit dafa dugg dafa naan jur gi di ca naan lépp di aw yi kon loolu liggéey nañ ci liggéey boo xam ne ci meññeti murit gi la waaye tabax daara ak i jàkka yoo xam ne tey mën naa wax ne bu dee yi ay millions yi nit tey ñi ngi jàng di xam seen diine te ci daara yu Sëriñ Tuubaa njaboot Sëriñ Tuubaa sos moo leen loolu nag du lu yi kon liggéey bu waaye taalif ay téere xam-xam yoo xam ne tey nit ki mën nga fay jàng ba li nga soxla lépp nga jàng ko tuddoo génn téere yi njabootu sëriñ bi ci fànni fànni xam-xam yu bare bare ak nag wàllu koom-koom bu ma ko wax ñëpp xam nañ ne koom-koomu Sénégal li ci ëpp léegi ñu ngi ci loxoy murid yi ñu bari ci ñun xamul ne murid yi seenu ni ñu toll ci réew mi bëriwul loolu de waaye amul jeexit ci seen dafa mel ne ñoo fi ëpp ndax seen yëngu. seen teewaay ci wàll yëpp booy xool da ngay jàpp ni murid marché boo dem da ngay jàpp ni murid yaa fa nekk te ihsaaya yi saxal ay 35 pour cent la ñuy wax ne murid yi wala 30 pour cent moom lañ ci réew mi te booy xool day mel ni ëpp nañ 50 pour cent loolu mooy jëf ju barkeel yëngu su barkeelee day daj fépp amal njëriñ ñëpp ñëpp mën cee jot loolu ci meññetum yoon mi la bokk ñu war ko bàyyi xel loolu nag mbokk yi jàpp naa lu mat a téye lu mat la kon bu ñu gisee. ak wan ginnaaw di am jar na ku ne xalaat ci lu ko waral waaye wan ginnaaw mi ngi am moom wan ginnaaw mi ngi am ci ay anam am na ñoo xam ne ci biir yoon rek day gis ay kuréel yoo xam ne doo mën a firi ñu lu ñu doon wax naa leen sëriñ bi daawa rabbaniya wasatiya la woon waaye day gis ñoo xam ne benn wet lañ jël léegi léegi daal ay kurus ak di wér dugg dégg ba cëkk di julli mooy seen liggéey doon ay gone yu ndaw waroon a jàngi jàngeetul bu leen waxee ñu ne maa ngi ci liggéey bi course dañu yor waxtu bu ne sëriñ jële na fi loolu boole woon course gi ak der bi ak gopp bi la boole woon ba tabax kon loolu boo wàccut carrément bu dee ñaari punu benn bi wàcc na loolu ci la bokk ñi nga xam ne jàpp nañ yëf yi léegi daal ruux rekk la waaye yëngu fee na mun njëriñ tëjul sa néeg deel julli téeméer ak mas na am mel mbokk mu ñëw wax ma ne ma daal moom daa am ko mu àndal koo xam ne li may def lu baax ne ko lu mu lay sant mu daal moom la muy julloo lay téeméer ak ma ne ko yow na ci yow yow moo la dem jànde te Ibrahima sax waxoon na ko ne nit ki xëy xam lu ji benn bunt ci bunti xam-xam moo gën julli ci sama jàkk ji téeméer ak ndaw lu toll ci jàng daa war a jàngi ki toll ci liggéey daa war a liggéey kon loolu it ak xeetu wàcc la waaye jàpp ne fulkuro rek lay nag mumbaay rek la nañuy tëgg nañuy jaxasoo yi jëlee yëpp amul solo ba waxee ne sëñ amul morom loolu sëñ bi taxutoon loolu taxut jóg loolu taxutoon ay sëñ Darou Assane Ndiaye ak sëñ Modou Xëri ñoom ñi bàyyi seen lépp dem topp sëriñ bi yooyu it xeeti wàcc yoon la yu bàyyi yu am ci yuñ ci teg bët kon ak yoo xam ne nag matériel lañ ko jàppe léegi nattukaay yi ñu nattee ñenn ñi. mooy nu mu toll moom lu mu am ci ay bien fu mbooloom toll buñ la gisul fañ fañ natte ñu ne ah kii de agugu ci yi bokkut ci kilifa yi kañ la màdd doon nattukaay ci yoonu sëriñ bi kañ matière kañ la doon nattukaay ci yoonu sëriñ bi ñu ànd na moom matière lañ bàyyi ñenn nañu yoroon nañu pal ñenn nañu yor di doomi soxna ami jàkk yilif mbooloo xëy wan ko ginnaaw ngir wuy sëñ bi ñooñu matériel taxul li woon jóg kon buñ jàppee ne matériel la ci lañ ñu natt ku ko am ñu ne yaay waaja ku ko amul ñu ne doo waaja booba wàcc nañu yoon bi loolu ci wàcc coono la bokk mook koy war suuf natt foofu nit ñi diine yi yëfi yëfi sëriñ Tuubaa yi matériel jumtuwaay la ci bu ñuy àgg ci yàlla ku ko weesal loolu tooñ nga borom lu ma tax xam la euh, beneen bi ci des it mooy. am na ñoo xam ne dañuy génn yoon wi dem ci yeneen tarix xam nga li ñu xamoon ci yoon wi mooy waxtu wu ne ay nit di jóge ci ay tarixa ñëw di jëbbalu nit jóge ci diine ju dul ñëw di tuub waaye buñ demee dem ba gis ku juddoo ci yoon wi ñu tuddee ne kilifa ñu xëy ne génn na yoon wi jël na weneen yoon loolu am na mi ngi am ci mazahir yi génn ci la bokk ak ak gi ginnaaw am na nag sax nag lias bi lay taala ñu génn diine ji te ci yooyu lañ juddoo xëy génn ci diine ji laa wax am na am ñoo xam ne li sëriñ bi doon woote muy tasawuf dëddu àdduna loolu moom lañ bàyyi jàpp ne du diine di woote leneen ma ne ne ñooy lislaam ju sell la ñoo dëpp ak sunna sëriñ bi mooy sunna pas-pas yi mu yi mu taxawal yi mu taxawal diineem boo ko génnee ci sunna mu jeex al ilmu naafi al amalu saalih al adabul mardi su génnee ci diine laa wax diine jeex loolu ku xam ku ne xam ko bu dee ci pas-pas aqida ashari bi mu yoroon ku ko génne ci diine man naa wax ne quatre-vingt nangam pour cent wala quatre-vingt-dix nangam pour cent ci julliti Sénégal julliti àdduna ci démb ak tey da nga leen génn ci diini kàngami lislaam yi gën a mag ci pas-pas boobu la nekkoon masabu Malik bi ñu doon wootee sant taalibe yi ne nañ ci tëggu moom nag ñëppay sëriñam waaye taalibe yi nañ yem ci masabu Malik Malik moo jàngal imam Shafi'i imam Shafi'i moo jàngal Ahmad ibn Hanbal Malik moo jàngal Abu Yusuf ak Muhammad ñaari dongo Abu Hanifa yi gën a mag tasaare ngërëm Maalik leen jàngal kon mooy sëriñu ahlu sunna wal jamaa maçon bi moo nekkoon Madina a xadis bu yontu alisa wax ne nit ñi danañu danañ danañ danañ war ay gileem di wër waaye duñ gis aal ku mel ni aal Madina borom xam bari nee nañ imam may lañu wax moom la doon junj mooy ki nga xam ne moom la naa wax ne laa yuftaawu maalikun fil madina jataay bu mu teg keneen borom xam-xam dafa yëkkati kàddu sëriñ bi ñooyu la ñu kon mooy dafa mel daf ñoo tànnal li gënoon ci biir ngir pas-pas yi tànnal ñu li gën ci ngër yi bu dee tasawuf yi tariixatul junaydi tariixa suufiyanke wi nga xam ne jëf du sell te melowoo tasawuf mën nañ ñoo bañ tur wi waaye li tasawuf ëmb ku ko bañ génn ci diine am na benn borom xaw bu am solo doon wax ne li ko jaaxal ci tasawuf ak ñi koy weddi li lii tasawuf koo ci wax mu ànd ca da ko misaal ci nee na daal benn waaye boo xam ne boo ko ne carotte a ngi nii mu ne ah carotte baax na andi ma lekk ndax baax na ci bët boo ko nee nawee mu ne ah kooku day reysal ay xeer ña loo ko tudd ci yooyu rek mun la marhaban nga nga nga boole leen nag daf ko benn palaas jox ko mu ne lii baaxul ndax tasawuf lan la az-zuhdu fi dunya tasawuf lan la ginnaaw àdduna ixlaas say jëf ñu ne loolu du benn boo ci jël rek dañ lay wax ne ne diine mënu ko ñàkk sufiyanke yi loolu lañ boole téye ko tudde ko tasawuf aw tur amul njariñ nañ ko tudde ne loolu yitteelul am solo mooy li ñuy def lu mu doon kon sëriñ bi yooyu lañuy ñu tànn loon kon ku ko wan ginnaaw day jàpp ne yow yaa wàcc yoon loolu mooy li wér loolu nag mbokk yi li ko waral man ci benn baat laa koy tënk mooy sëriñ bi ñi mu defaroon ci tarbiya la leen jaarale woon ana tarbiya mooma tarbiya ruuxee mi nga xam ne day dikk defar sa jikko ba ndoom ndoomi soxna gi newoon ci yow ngay iñaan di soxore sa moroom mu dindi koom set wécc sa morom gënal sa bopp ana tarbiya googu ana tërbiya gi nga xam ne lay defal ba àdduna alal joo ci am dangay ngay sawar a xëy gis kooku soxla nga jox ko ko ngir yàlla ana tërbiya googa ana tërbiya gi nga xam ne da lay yar ba nga xam ne boo biddanti woon boo xëyee danga nga duma sa bopp teg ko daan yu metti yoo xam ne ngir boo liggéey doo ko teg ana tërbiya googa sëriñ bi du ci ak ndànd fay fay la defaroon tërbiya la sóoboon yoon yi ana tërbiya boobu moo lu ñu mën a wax tërbiya boobu la war a delloo si waat ci nit ñi tarbiya goo xam ne danañ jàngal nit ki li mu war a jàng mu xam ko waaye danañ ko yar tàggat ay cëram ci lañ ko war a tàggat waaye li ëpp ci suñu njaboot gi boo góorgóor la booy bukki dara mu jàng alxuraan jàng dong la fay def te sëriñ bi jële woon na fi njàngum kese sëñ daara bi jàngale képp lay def bu noppee siwaat benn nga ne boole ko kenn muy xëy di jàng di ñëw wala nga bàyyi ko muy wëral boppam ñu ëpp ci gone yi dem loolu la dañ lay bàyyi ngi waru sa bopp ku ne nga dem làmb ko léeg nga daje koo xam ne am xelam jub na xam na ne sorego mu wax la ba gëm lu boppam gëm la boppam nga bàyyi say mbokk bàyyi sëriñ bi bàyyi la nga newoon topp waaye bu tarbiya amoon fam fa sëriñ bi jaarale woon mag ñi mag ñooñu samp daara ngir saxal loola ñu bañ a gental kër yooya bañ a gental dëkk yooya waaye bu ñu fa nekkee yit nag nekkee fa la fa ñooñu ñu woon bañ koo def rek toole yoo xam ne bay gerte dugub rekk rek la waaye la ci des amutoo ci soxla daara ji daara ji day yare di jàngale di xamle Sëriñ Tuubaa ci Daaru Salaam bi mu njëkk a sanc ci tarbiya googu la fi ànd ak taalibe yi mag ñi ko xam dañoo nettali ne buñ ñu masaana sëlmal timis sëriñ bi mooy jiite si karsi ba gee jot mu ànd nañ ñoom ba seen seen seen yaram tàng ci yàlla ñu dugg ci jàkka ji julli gee dellu ci këree di nafila ana loola ana loola mbokk yi li ñuy jàmbat lépp man jàpp naa ne nañ ko delloo foofu nañu yar njaboot yi suñ bëggee la maam yi amoon ñoom ñu am ko yoon la woo xam ne da suñ koo for ci mbedd yëri téere kese du ko maye ndax bu doon loolu mag ñii ñu leen wax duñ dem ci sëriñ bi ndax yoroon nañ téere yi waaye lu ñuy dund la te nit dala ciy teete ànd ko yow waaye du rek nag yóbbu la ci tool wàcc la du la gis guddi du la gis bëccëg loolu ne nga ne ca sa bopp ngay nekk léeg-léeg boo bàyyee xaaj ko jaay jox sëriñ bi lan la ci des nga jaay ko def sa bopp léeg gis donc boo xam ne moo moo ñecce ñecce kër yi dañ koy ñee loolu loolu du tarbiya bi ñuy wax sëriñ mbokk yi tarbiya ruuxiya buy defar ruux ba mu nite yàlla ñor ko saf sapp yàlla mbokk yi loolu mooy lim li ñu manqué ko jàpp na ne nañ ci dellusiwaat te xamal nit ñi yi ñu wax xamal leen pas-pas bi sëriñ bi woon lan la ak ñan ñoo ci newoon umpuli ko mooy tax nga woon ko ginnaaw waaye boo xamee ñi ci nekkoon xam liñ ci daj ak liñ indi danga xam ne boo ko wanee ginnaaw war nga ginnaaw diini waaye mësër bi doon dund it mooy kan kan moo ko fi indi ci lan la tënk bu leen leeree duñ ko wane ginnaaw nit nag lu mu noonu ko man jahila shay'an ada loolu ab xaaxida la bu du toxu ginnaaw nag xamuñ li sëriñ bi doon indi bu bu buñ istigraam maanaam bu mu ñu jaaxal ñu gis ñuy dem yàlla xam na ne bari na ñoo xam ne fa ñuy dem fiñ bàyyi koo ko gën fuuf tane ko fuuf waaye dañuy rafetal kaw léeg-léeg ba mel ne lu jag te loolu mooy li yées kaw jag te biir gi tànq kon nag ñun ndono liñ am nañ ko sàmm téye ko yoon wi ko sàmm nag mooy daari tarbiya ci maanaam mi ko sëriñ bi dégg woon ñi mokkal alxuraan. di jàng xam-xam waaye di ko dund ànd ak ñoom di ko dund loolu jàpp naa ne bu buñ ci tënkee ñëpp programme yi sëriñ bi amoon ñu fexe ba daara yëpp amaat ko ndax mag ñëpp seenu njàmbaar sancoon nañ ay sanc sanc yooyu buñ fa delloo dafa daara di dund loola jàpp naa ne njaboot yi cay màgge ñoom kenn du leen mën a këf den yóbbaale ndax xam nañ baax baax na sëriñ bi daroon doon defar nit boo xam ne saa yu noppee ci yow bala nga dem foo fanaan boo xëyee tàmbali soppi nit ñi kenn dootul soppi léegi lu tax kon suñu njaboot ñun buñ génnee rek ñu soppi leen mooy la defoon ca maam lañ defut ci moom kon faw soppi du ko war a jaaxal loolu mbokk yi mooy moom mooy mooy li am kon jàpp naa ne ñun ñëpp ñoo am mas masuuli yëpp war koo sàmm war koo taxaw delloo si daara yi di tërbiya yu fi sëñ bi andi tërbiya moo wuutele su yoonu sëriñ bi ak li fi fekkoon ndax bul yemati ci njàng la ko waxoon ñun nag dañoo delluwaat ci njàng kese ku ci góorgóorlu ba jàngal sa doom jàng nga ko yam te ñu bari ci ñun sax nag jàngaluñ seen doom ci mbedd bi la ñuy dajee rek di xëy di góorgóorlu léeg-léeg ba yàlla dimbale la waaye mënuñ naa wax dëgg-dëgg sax ci noo jànge loolu bari na ci suñu biir loolu nag sëriñ bi noonu ku ne fa nga daan nekk moo la fa daan yóbbu di la di la wax fi mu bëgg nga jaar fi fi mu la yem loo nga fay yem ku mel noonu nag du wàcc yoon mukk maa ngi jéggul di baalu xaq mbokk yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah